beaucoup mes amours lu ngeen nekk bii moom amoon naa ko dama ci doolewaat ñaar bi amoon naa ko dama ci doolewaat ñaar jaaro bi dama ko jëndoon 2 ñëw jënd ñaari jaaro yi ak collier bi bii amoon naa ko mais bi dafa yàqu ma ñëw dugalaat ko ñu jox ma beneen bu bees bii bu bees yu bees tàq la ak lii ak jaaroom ak lépp ak lii ak lii collier bi nag lii laa jënd amet génneel xaalis Ameth bul génne bi waaye dañuy def génne li ma la jox Ameth compteel par benn. xaalis baa ngi nii huit millions. neuf millions yu manqué tuuti ah. day mat dix millions. ok kon dix millions laa tax ci màggal bi. wax ji dafa bari coow li bari waaye nag ma xëyee ngeen di wax bu ngeen mënul waaye def bu ngeen mënul lii rek laay tontoo léegi